parce que ñun li waroon a am bu amoon ñun en tant que ay imam ay nitu diine dañoo waroon a nekk rek ci digg bi mhm. maanaam di observer di joxe sunu xalaat waaye nag buñ demee ba gis ni dañoo gis as gor gale boo xam ne dañoo singli dañ ko singli di acharné wu ci kawam mhm. droit am ak i àqam ah, ñu nekk ay sénégalais lépp fekkuñu fi amuñu droit seetaan ma ci wax ji euh, parce que bokk na ci euh, fi ñuy xaar kilifa diine wala nit du ma généralement ah, mooy mandu bu ma ne tey jii nii yéen fan ngeen teg ba jàpp ne nit ki dañ koy teg doole wala jox ne xëy na mi ngi ci loxoy yoon yoon atteegul naka ngeen mën a jàppee fan na ne saawaay dafay subiir benn injustice c'est important man mi di wax ak yow droit islamique laa jàng kon xam naa lan mooy yoon waaye lii ñuy tuddee yoon ñun jàppewuñ ni yoon la yoon yoon jóg na ci réew mi yàgg na parce que yoon mooy lu ñëpp bokk justice mm-hmm. équité loolu dañuy wax ni amatul ndax réew mi ñun ñëpp nangu nañ ni benn pouvoir moo fi am muy le pouvoir exécutif te pouvoir boobu président de la République moo ko yor mooy contrôler judiciaire mooy mooy contrôler euh, magistrat yi mm-hmm. di contrôler lépp ci réew mi te pouvoir boobu dañoo jàppoon ni dafa war a tëddee njaaxaanaay nekkal fi ñëpp bi ñu gisee ni dañoo jël justice bi bu ko acharné ci kaw ab sénégalais comme ñun dëkk ci réew mi ñun doomu daara yi ci lañ taxaw nag wane ni ni contexte bii bu fi alaaji Malick nekkoon day taxaw bu fi Serigne Touba nekkoon day taxaw bu fi Cheikh Omar Foutiyou nekkoon day taxaw. Ah, mais ñooñu fan la ñuy taxaw. ñooñu fi féete ñooñu seen seen wàll. wéy na mais bañ ci war taxaw taxaw nañ ci ba mat sëkk. waaw mais seulement fi ma bëgg wax mooy ñoom seen taxawaay jëmul ci wàllum hmm. na ci ci àtte la woon ak li nga waxoon taxaw ci digg bi euh, di dénoncer des deux bords mais yéen seen kuréel gi dafa am fu mu féete. Hmm. est-ce que euh, loolu du muur seen ay gët tuuti ci li nga xam ne mooy lu baax jóge ci beneen côté bi. très bien loolu loolu dañ ñu koy naxee rek xam nga dégg nga dégg ñuy wax ni euh, mag ñi dañoo musoon a taxaw ci digg bi déedéet mag ñi fépp fu injustice mu sa nekk dañuy taxaw pour dénoncer ko. ma taxaw ci digg bi non non rek ma daaneel mosuñoo taxaw ci digg bi Serigne Touba mosul taxaw ci digg bi Serigne Touba fu dëgg nekkoon la la doon xeex moo tax ñu exilé ko. Mhm. Cheikh Omar xeex dëgg moo taxoon mu jàddu jaas yi. Seydi Hadji Malick xeex dëgg moo taxoon muy jàmmaarloog tubaab bi idéologiquement. mais loolu mu daaneel c'est important mu daaneel ah, sama pensée ah, kon loolu ñi koy wax dañoo bëgg a nax réew mi bëgg a nax ñun jàng nañ tuuti histoire mag ñi ci dëgg lañ mus a taxaw fu dëgg jullit li ñu la sant mooy nga taxaw ci dëgg. dëgg gi féete ci askan wi. waaw dëgg dëgg guddi yi. mais yéen seen dëgg. xëy na féete ci wàllu politique. est loolu mooy différence bi. déedéet ñun dañoo gëm ni askan wi la ñu féeteel. tey li ëpp ci askan wi nga xam ne ñu moom seen bopp lañ. te Sénégal tax leen di wax dañoo féete dëgg dëgg mooy kiñ nar a jaay doole ab sénégalais la dëkk ci réew mi ñu bëgg ko kompaloo bañ jàngatee ba xam ne li kompaloo la ñu jël position bu leer ànd ak moom muy président Ousmane Sonko. mais jaay doole gi ngeen di dénoncer tàmbaliwul tey am na ñu jàpp ne xaw na yàgg Sénégal. seen jamono xëy na euh, après événement Mamadou Diaye la xëy na après événement Abdou Diouf ak Ablaye Wade la mais fekkee ngeen tuuti ci wàllum. Euh, Macky Sall ak ku ci mel ne xalifa sàll mm-hmm. ku ci mel ne Karim su Wade ñu ngi jàpp ne injustice la fu ngeen nekkoon boobu. waa très bien xam nga wolof dafa am lu muy wax dañu woon la woon wana parce que ñun xëy na jamono Khalifa Sall Karim Wade ñu ci bari ñun ñi ay étudiants la ñu woon. wala loolu taxu koo yàgg ah. waaw yàggul mais xam nga man euh, xëy na man loolu mënuma ci parce que boobu li ma gëm daal mooy la woon wane na parce que ñun euh, la passé passé la mais ñu ngi ci présent. li teew daal ñu xew xool ko bañ càmbaree ba xam ne lii complot la. ñun ñu nekk ñoo xam ne. gëm nañu teg ne complot la man loolu moo xaw a jaaxal en fait damay bañ ñu perte suñu temps. non du perte temps c'est important en fait boobu. la moo tax ngeen jàpp ne complot la parce que Ousmane Sonko. Mm-hmm. moom nit ñoo am problème. ñaari nit kenn ki Adji Sarr la tudd kenn ki Mame la tudd. Mm-hmm. li ko yóbbu ci Mame Mbaye Niang. Mm-hmm. ay kàddoom la. foofu ana complot. xam nga complot bi mu ngi tàmbalee comme ak yaa tudd Adji Sarr. ñun bi dossier amee dañoo toog ñun ñëpp ñu ni ñu dossier privé la. ñu jékki-jékki gis république bi yëpp jóg. yéen a ko tàmbali de boobu xëy na bokk goccoon mais yéen a ko tàmbali. ma daaneel c'est important waaw parce que Ousmane Sonko moo woo ñëpp ñu jóg si. ma daaneel bi ñu gisee république ci benn nit pour jéem koo teg loxo peuple bi jóg lànk bañ parce que Ousmane Sonko korog bi ñu ko defee mandat dépôt. Mhm. peuple bi moo ko génne. peuple bi ñoo ni d'accord ñu ci nga ñu koy def. yaa ngi dégg kon dañoo ñun dañoo gëm ni complot bu raxul dara la parce que lislaam ñun ci lañ sukkandiku l'islam dañu boo tuumaalee nit te amoo seede tuuma boobu du taxaw certificat médical bi wane na ni la ñuy wax caaxaan la. mais tuuma l'islam nekkuñu ci république islamique. waaw justice tribunal moo war a àtte te egguñ fa. non dañuy waxtaan xam nga dama bañ ñu ñu ñu ñu dama bëgg ñu def étape par étape. Mm-hmm. ñun même bu ñu nekkul ci république islamique ñun ay doomi daara lañ islaam mooy suñu idéologie donte xàmme nañ ni ci république lañ nekk laïque ñu nangu ko nekk fekk beneen minorité respecté les trop waaye nag dañ li ñu islam jàngal ci la ñuy gën a sukkandiku en tant que ay doomu daara. li ñu gëm waaw waaw mais atte yëpp ñoo yem loi yëpp ñoo yem cëslaay cëslaay bi weesuwul amuñu seede le certificat médicale ki ko génne di ab docteur xamul Ousmane Sonko moo wane ni dara amu fa. kon bu ñu continuer di insister dañuy jàpp ni justice nekkatu fa waaye caaxaan moo fa nekk complot gor moo fa nekk yii yëpp bi ñu ko jàngatee ci lañ taxaw nag daan ni duñ seetaan Mamadou jaar ñu rendi ko seetaan Cheikh Anta Diop ñu rendi ko seetaan ñu exilé Khalifa Sall seetaan ñu ñu exilé Karim wadd xañ xalifa Sall te lépp justice su ko def même justice bi bëgg a xañ Ousmane Sonko mu bokk ñun dañoo gëm ni bu fi suñ maam yi nekkoon duñ ko seetaan moo tax tey doomu daara yi nekk ci Sénégal yëpp këru diine boo mën a jël ci réew mi Touba Tivaouane Ndiassane ah ba ci àndulaay gëm a jóge man pire ñu def benn bloc taxaw ci wetu Ousmane Sonko ni ko nag Macky Sall bu la rendee dinañu rendi waat